dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook source ami dellusiwaat ci candidat bii di Anta Babacar Ngom ak visite yi nga xamante ni moo koy def ci biir réew mi mu ngi woon ci diwaanu Ngaay Mexe doon waxtaan ak artisan yi ba noppi xamal leen xam naa seen jafe-jafe ndax Sénégal bu ñu xool kuréel yi ëmb artisan yi bëriwul ba noppi mën nañu leen a jàppale et pourtant ñoom ñu ngi gérer nag chiffre d'affaires bu am solo ci biir réew Diop dellusiwaat na ci bëgg nag bés bu yoree réew mi nag daal ci taxaw temm jàppale artisan yi ñu gën mën a gis seen bopp nag ci biir réew mi leneen lu yéenekaay bi def taxaw seetlu moo di visite bi nga xamante ne nii Amadou Ba doon na ko def ca France waaye hôtel ba mu logé nag fa ñu fekk Mamadou Ibra Kane moom muy leaderu Demain c'est maintenant yéenekaay bi laajte lii coïncidence la wala boog dañ ko coordonné en tout mu di am na ci ay responsable nekkoon fa la Amadou Ba tamit nekkoon ak délégation bi nga xamante ni moo jógee ko woon Sénégal ba tey yéenekaay bi def taxaw seetlu ci visite bi nga xamante ni Amadou Ba doon na ko def nag ca diwaanu France ne moom dongu demutoon ndaxte ba muy dem yóbbaale na ay ministre te pourtant président Macky Sall aaye woon na leen li ni mel sàkk woon na ci ministre yépp na ñu des ci biir réew mi waaye Amadou Ba demoon na ca France Birame Faye demoon na ca France Abdoulaye Seydou Dia demoon na ca France maanaam délégation ministérielle boo xamante ni amul nu mu fa takkoowul lii lañ teg ne tege réew mi daat koy wan ginnaaw Sud du Quotidien lu sérieux nag moo nar am ci talaata ak suba ji yéenekaay bi di ñu xabal di weesuwul nag affaire Ousmane Sonko yi ñeel nag mbiru radiation am li ko teree woon na jot na fiche de yi yéenekaay bi def na ci taxaw seetlu ne suba nag ci tribunal bu Dakar foofu la ñu fas yéene audience bi audience bu bëri risque te njagasil la na li ni mel ne bési suba bii ci la ñuy xam nag situation politique bu Sénégal génn ak organisation internationale yi ngi koy bàyyi xel su conseil de médiation et de sécurité bu CEDEAO yéy nañu yàbbi laa la wax ci affaire u Sénat ci biiru Ousmane yi dem bay xamle sax ne bañu ñu toog nag ak ñaari parti yépp te moo di état bi ak camp Ousmane Sonko ngir élection présidentielle yi Sénégal di jëm nañu dem ko ci jàmm ci ga yéenekaay bi deeswaat ci coow li nga xamante ci week ci révélation yi nga xamante Sénégal lañ ko defee li ni mel nag tax na Aly Ngouille Ndiaye yéeg na ci yàbbi weddi tuuma yi ni mel tey xam ne ne gis nga révélation yii day firndeel rekk ne maître Moussa Diop dara nekkul ci bopp bi ñàkkub xam-xam kese nag moo tax mu def révélation yi teg ci moom ne na lettre boobu muy wax gisu ko ñaareel moo di exploitation bi amul preuve yi Moussa job joxe yépp na benn du ci dëgg Ousmane Cissé di ancien directeur u mine moom lim xam la ci coow li moo di jaune noir boobu nag maître Moussa Diop di wax dèjà amul ay meññeenti jama te bokkul sax ci registre bu Sénégal maanaam Moussa Diop révélation yi bu def dara du ci dëgg en tuumaal na ci moom Aly Ngouille Ndiaye Mimran ak président Macky Sall ne exploitation bii lu existe la te ñoom ci seen jëmi bopp na ñoom ñoo ko contrôlé fekk jamono jooju premier ministre moom mu nga ca France meeting bu rëy la fa amal gannaaw audience bi nga xamante ni doon na ko defar ak premier ministre bu France moom Amadou Ba ab stade la jël duy ko ba mu fees candidat wu Benno Bokk Yaakaar bii def fa rassemblement bu rëy yi ba noppi dig waa Benno kenn dégg ko sax waaye léegi kenn gisatu ko li waral li ni mel stratégie la am déet en tout cas yéeni kaay bi dees waat na ci tañuy xamal ni Idrissa Seck fi mu toll nii dafa concentré wu ci projet de société am programme bi nga xam ne moom la fas yéene dëkkal nag Sénégal ci la nekk di liggéey moom ak coalition di jëm tam def la tuuba élection présidentielle yi di ñëw bu nee bërët ànd ak na coalition bu rëy bu mag boo xam ne ay kàngam ci ëttu politique a jege nag Abdoulaye Wade ak Karim Meïssa boo leen seddoo sax ci ëttu politique gii xam ne Macky Sall ak waa PDS réeroo wuñu dèjà doo gis benn responsable PDS bi attaqué président Macky Sall dafa mel ne actuellement li moo di dajale libéraux yi nañu nekk benn say yéeni kaay bi di laajte ne moo nekk nouveau logiciel bu Macky Sall lu ñuy defar tapareegul ci élection présidentielle yi li wérte wur daal bi obstacle gën a koo rëy laa la wax ci biir réew mi lu nekk nag mën na cee xew li wérte wur daal yéeni kaay bi mu ngi xamal ni Macky Sall moom réeroo wut ak Karim Wade PDS Macky Sall réeroo nu benn yonte li ci kanam nag rawali bët <laughs> mbokk yi continuer di abonné bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV i gën a bàyyi xel nag télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah